wa mama na nga def ma ngi fi tonton yaay am jamm bu baax wa ma ci jamm bu baax mais yaa ci jang bi wa ma ci jang très bien mhm. eh, sa papa wax na la sa papa hmm. dede waxu la dara dara dara waxuma oh, dara de ah oui kon man la doon xaar ma ñëw wax la ah lu mëna bi ci guddi bi ma ñëwee wa ci biir neeg bi lañu tok di waxtaan sa kaa man waaw ndax man dama la bëgg takk jabar wax ak sa papa mu ne amul benn problème naa la ko wax takk tonton waaw man xale jàng mais loolu aayul ci jàng non non aay na ma damay jàng tolloog ma sëy sax ay sama moroomu papa nga mais bu ma la takkee ba pare ngay continuer di jàng amul benn kii te xoolal moroomu papa bàyyi ko non man non ma damay jàng dëgg yàlla ma damay jàng mm-hmm. asalaamaaleykum. Eh, fay eh. Eh. na nga def. ci bir la di tollu deg sa kaddu waaye ñu na sang Diop. na nga def way monsieur Diop na ngeen def. ma ngi fi nako cionay yi. sant yàlla ah, bu baax gis nga kër gi de. ah waaw waaw kër gi de nonu la mel. waaw. Mama poussal ne na ngeen def. ñoo ngi fi nako nako njabot ga. ñepp nga ci jamm ñepp nga ci jamm rek. Alhamdulillah. ah. gis nga de man ni la ko bëgge waaw ni nga ko bëgge sax xajna amna tout lu ci laxasu. ah ndax maman laa doon waxal sànq mais nee na moom pareegul pour sëy te it mi may jàppee sa moroom ne moroomu baayam la Diop waaw sama waxi démb ak barki démb mooy bu tey man daal maa ngi ci li ma nekkoon mama bu ma ko takkee tabax kër gi defal la ko état alhamdulilah la ay magasin ci suuf nga di ko loué waaye nag mama daa mel ni moom bëggul nee na maman eh xulli ma fii laa la wax sama ndey laa la tuddee ci say nopp sa yaay bi muy am fukk ak juróomi at hmm. la sëy si woon ci biir kër gi waaw mu sëyal ma sëy bu rafet bu am leen ci yéen ñii. dafa war a doon ndeyam kon yow doo dem ba toll nii lëng la ngiral am fukki at ak juróom euh, naan naan yow doo sey kon yow kii du ñëw ak teraangam nar a defar kër gi ba mu jekk ngama ma koy xañ di nga sëy par la force laa la wax. da ngay sëy la wax. Eh, sama rak mama. da ngay jooy. Eh, la joy yow. xolal papa bi mo beug may papa bu bi. ban pa ki muy def ak veram yu boni eh je ne sais pas ton négat ah. Eh, nobel yow yen ni ngeen di def di nan da ngeen di doxan sen morom doomi naan di yen ko wara a yow ki nga beug jabar yow. waaw. même touti ma ñew ma defal la affaire léegi sax. eh ki du sa morom de moy ku bon ci ma la doon wax rek. tekkiwul dara tuux naan sàngara rëy mi rek la fi nekkee ko waaw mais père yow sànq nga ne loo waxee yow jabar nga bëgg xaar ma foofu ma ñëwee yow eh eh tegal seet bi laa la wax tegal eh andi ñëwal nii te te wàccel sa ngeen ñu bon ngeen ñu bon ngeen xañ gen seen bay lu ne xañ ngeen ma waay waay xañ ma xaalis xamoo lu ma la xamal billaahi di nga sëy yow ku bon nga papa yow li bëgg moo fi mënta am du fi am tey fi am suba man waaye sa maay kilifa ci biir kër gi nag li ma bëgg moo fi am kii dina sëy ci nii dina sëy ci naa ku nga laa wax nit ku ki nga doon waaw baax na waaye yow nga ma waay <laughs>